chers amis internautes bu Lune TV ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare euh, fépp fu waay ma nekk fekkee na di la ziare baax a baax euh, ba léegi ñu leen wéy di toppal euh, ñun ak suñu gën waaye te nag ci benn meeting lañ ñëw fii ci diwaanu ñàgg ñàkkorop Tivaouane Peulh certificat koo xam ne Moussa Abdou Aziz Sall lañ koy wax di xëccoo bokk ci ñi xëccoo maire bi fii nii waaye nag tey mu woote grand meeting bu ko defee ñu ñëw fekk fi ay gan yoo xam ne ñu ñuy bàyyi xel lañ ci réew mi kuñ ci njëkk dara rek ñu koy wax jaraaf Tanor Kane bu ko defee xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi ñu seq moom waxtaan euh, suñu bàyyi jaraaf Tanor ñoo ngi leen nuyu bu baax baax di la ziare ak lu waral tey nga ñëw ci meeting Abdou Aziz Sall bi. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullah wala ma ne asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax ni meeting bi boo gisee ñu ñëw si. meetingu Abdou Aziz Sall bi dañ si bokk moo tax mu ñëw fi ñu ñëw si parce que jaboot jàmmaay mbokkam te ñoo ko jabootee mu taxawee nu jàmm. kon lu mu xewle lu ne dañ ci war a tax a rib te bu ne ñàkkurab ni tëngéej benn la li waral ñàkkurab ni tëngéej benn la nuy tooli maam la comme yàlla dafa dogal nag mu dëkk fi soxla dëkk bi dan ko ko war a jox bu naaj tàngee ku ne sa boot sa doom nga war a boot kon Abdou Aziz Sall mii sunu doom la te naaj tàng na dañ koy boot jooyante ko sa kaw lii nu ñëw tey muy ab mitin balaa yàgg yàlla nañ fi ñëw feete victoire bi mu jik a jignu ñu ngi koy dagaan yàlla li moom bu fa jiyee war naa sax te bëggunub saxayaay li ñu bëgg mooy teg ko si maire bi mu yor ko di ko doxal ki yor alali boppam di la si dimbali di si dimbali dëkk bi boo ko joxee li nit ñëpp bokk dina ko defar gën saa defe defenin tey yàlla dénk na ko teraanga kaar macha allah mu mënoon a toog mais dañ ko bul toog parce que kat boo jiitewul ñu jiite la te ñu jiite di euh, lëndëmal mbir mi kon kaay jiiteel leeral mbir mi comme xale yee ko woo nag mu ànd ak xale yeeg ànd ak mag ñi foog mu jóg taxaw liñ koy dénku daal ñaanal ko yàlla rek xamal ka ne que fi mu tegu foofu la yàlla na sax te ànd ak jàmm ni kër boo siy dugg da ngay jaar si buntu kër bi mais dugg na si buntu kër bi parce que mag ju jigéen mooy yaay mag ju góor mooy baay kon bu yaay gërëmee yaay gërëm lépp lew na yàlla na yàlla gën a barkeelal ci kàttanam parce que xew-xew yi bari na lool waaye koo yëgul du mën la déplacer jaraaf ak ab saltigeem ak i lingeeram ak ndey ji rew mu ñëw ba ñàkku rab kon dañu yëg nu yëkk mbir mi daal suñu yëf la dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan bu nu yee guddi sax nu ñëw parce que li nga bokk kat doo xaar ku la ci oo da nga koy téye ba mu dëgër kon nag Abdou Karim Sall yàlla na nga dégg maire balaa yàgg nu ànd bokk kaak yow sa kaw xeeb nan maire sax jëlal maire jël ministre jël leneen yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko def parce que ndaw kat ñàkkul dara rawatina ndaw ju dégg conseil nu ngoo ànd ak nit ñi loo am bokk ak nit ñi kon daal yal nañu ko yàlla taxawul taxaw nu taxaw ñëpp parce que dañuy delluwaat ci baat bi jaboot jàmmaay mbokkam te taxawee na jàmm kon yal na yàlla jàmmal ko kon nag wasalaam. xam naa balaa ñuy ni xam ne da ngeen dox ci social da ngeen dox ci ñu ngi bàyyi xel ngeen te élection yi gis nañ ni ay violence bëri ci loolu boo amul looy conseil ndaw ñu loolu wax. xam nga li ma leen di wax mooy ñun ñëpp bokk ndey noo bokk baay. te it kuy defar dëkk doo ko taal kuy defar mu tee boo taalee ñàkk nga dëkk bi te ku xool si monsieur le maire Abdou Karim Sall mi Abdou Aziz Sall mi xam ne jàmm rek la woote kon nag jàmma jaboot jàmmaay mbokkam te social moo si man ñi nu gisagul comme nag dafa yor alalam di ko bokk ak nit ñi kon buñ ko joxee lu mat a joxe kon euh, du ko nëbb te oto bi si kanam foog bi si ginnaaw di ko corné kon nan bàyyi xel loolu nun dañu war a jiitu nanu jiitu parce que kat ku am say ndaw ñu baax lool boo leen fa bàyyee dénk ñeneen kon la yàqu ak yàq te kila naan ngelaw ba gisee caakiri du mat a wax kon nag yàlla nañ yàlla musal ci ñu ndaw kon loolu mooy sunuy tànk tey. ngi lay ziar bu baax a baax euh, saltige Ousseynou Seck. aoudu billahi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 ndax dafa dafa soxla dafa soxla lu la ay nawlam soxla te te lu nawlam soxla rek moom ay mbokkam dañ ko war jàppale mbokkam yi nag danañ taxaw tey pour jàppale ko pour yàlla defal ko ndam yàlla moo ay yàlla mooy maye ndam yàlla yàlla na yàlla defal benn fi ñëwaat di ko feete loolu daal moo ñu fi andi tey waaw incha allah tabarakallah mooy conseil ndaw yi dama leen di wax ne Sénégal jàmma fi xaj Sénégal ñëpp ko bokk senegaal mag ñi liñ fi liñ fi ñaan ci jàmm ak sutura ak teraanga moom lañuy ñu war a saxal bu baax ba baax ba baax yàlla yàlla def li ko neex ci ñun kon ñun bu ñu jógee bëgg bëgg jaaxal Sénégal te ñu bokk suñu ndey bokk suñu baay askan ñëpp bokk bokk ndey bokk baay day xaw a jaaxasu day xaw a métti day xaw a métti ñenn ñi ndax doomu aadama lu dul jàmm jàmmaa ko gën te jàmm jooju nag pok pok xol yi antan ko jëmm ji antan ko lépp antan ko pour que mu mën a nekk kon nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel ci xale yi nga xamante ne xel ke ne ñoo ci kër yi ci kër lañ jugee ci kër lañu delluwaat nañ bàyyi xel ci xale yi nga xamante ne xel ke ne ñoom lañu jël di leen utiliser di pour pour pour li nga ne xel ke ne moom la ñu wax ne moom la wax ne Eh, ki ki eh, intérêt personnel intérêt personnel baaxul baaxul ci dara eh, intérêt commun moo gën intérêt personnel te Abdou te Abdou Karim Sall fi mu toll nii Abdoul Aziz Sall Abdoul Aziz Sall ñu ñu koy ñaanal yàlla ah, ay mbokkam yëpp taxaw nañ pour ñaanal ko yàlla pour ko yàlla teg ko teg ko ci kanam ci kanamu dëkk bi mu jël maire bi. yal ko yàlla def ci barke yoon ci al alquran te incha allahu taala am na ci yaakaar bu baax. ndax ndax ay magam ñaanal nañ ko ay ay wëlalam ñaanal nañ ko ay xaritam ñaanal nañ ñëpp ñoom ñu koy ñaanal fa tabaarakallah bon yal na yàlla defal ñu jàmm defal ñu tutura diggalam na suñu papa ji toog El ndax lépp moom la moo na ko jëriñ ko moom mais def def na ci boole ñëpp ku ñëw rek mu ne ma ne la Abdou Aziz Sall sama sama doom la sama jarbaat la sama rakk la dem ba ngeen ñaanal ko kon kon moom yàqul ci mbir mi dara ndax ndax moom ci boppam moo waral mbir mi tey ñu jëm ñu bàyyi ñu bàyyi ko Ndakaaru bàyyi bàyyi ko Tëngéej bàyyi ko Pune ñëw ñëw ñëw ci biir bi nga xam ne moom mooy bisu doomam ba ci rakam ba ci doomam fa tabarakallah kon yal na yàlla jàppale ñu buñ fi ñëwaat fii def fi teraanga ju bare bare bare incha allah waxtaan ci barke alfan incha allah yi ba léegi ñoo ngi ànd ak yéen euh, ci ci ci meeting euh, monsieur Abdou Aziz Sall euh, xam naa ku ñuy tëjee rek mooy ndey ji réew alaaji Mansour Ndoye ca diwaanu Mbaaw moom it mu ñëw fii ci meeting bi xam naa dañ koy jox moom it mu rotal ay cadre bu ko xas bu na lax wa nimal wakiilu nixmal mawla wa nixmal nasiru uh, ñëw bi fii wareef la ma àndak ak membre au conseil des collectivités lébu ku si mel ne jaraaf Tanor Kan ak saltige Ousseynou Seck ñu ànd ak ay membre ànd dooleel jaraaf Tanor Kan ñun ñëpp ñu bekk kuréelu lébu gi teew si mitin bi maa moom Abdoul Aziz sal Biége njaay moo ko jur man ndey réew mi wax ak yow Onge Ndiaye moo ma jur Onge Ndiaye ak Biége Ndiaye ñoo bokk ndey ak baay soxna suñuy wax Awa ak moon njàng njaay ñoo len jur fi si ñàkkurub ngon man sama yaay fi si ñàkkurub la jógee wàcc néegi mbaaw moo waral ndey ji réewu mbaaw juddu li wax nag si Abdoul Aziz moo la bakka neexoon mu bañ a sonn si commune ab ñàkkurub ñàgg Tivaouane yàlla moo am wërsëgam di ko bàddil kaka neex yàlla na ko cat seexlu yàlla na yàlla taxawu ko ba mu yeggaleek sagoom waaye bu leen am amu àdduna la manoon nakaa doyloo dund ci ba ay sëti sëtitam dund ci ngon du am am moo tax mu ne dala ñëw ne dala jël maire Niakoulrop c'est la jeunesse de Niakoulrop ñoom ñoo gis ne seen commune doxul ñoo gis ne seen commune bari na ay manquement ñu reconnaître crédibilité am reconnaître bravoure am reconnaître vision am reconnaître objectif bi mu am pour la jeunesse de Niakoulrop ñoom la jeunesse de Niakoulom ñu ne Abdoul Aziz kaay ñu jiital la u nekk la président de ce mouvement ñu dem xëcco ji maire bi pour am ko Macky daanañu faral wax ne bu yaay ñaanee bay ñaan ñu yaakaar ne borom bi dina nangu dégg ngeen jaraaf Tanor léegi mu ne mag bu jigéen yaay la mag bu góor baay la te magam bu jigéen dégg léegi mu ñaan man mi nekk magam bu góor may ñaan te lii may ñaan ñaanuma ko ci bànneex dama ko ñaan sur une réalité bu mu def au sein de la famille ba fekkoon ne Abdul Aziz kala boddi ak ay mbokkam la man duma fi teew ak li ñu bokk bokk ndey ba dimbalu woon ay mbokkam ba dimbalu woon ay dëkkandoom ba diggul woon ay xeetam ba mu wér ma man en tant que ndey ji réew fi teew ngoon ci loogu la maa sukkandiku ne Abdul Aziz Sall yàlla na ko suñu boroom jox maire bi ci anam bu sel li ñuy conclure nag mooy Je souhaite que la commune de Niakorop, Niag soit une jeunesse consciente, une jeunesse responsable, sans violence, ni haine. Nous n'est que des citoyens modèles. Qui fait sa campagne, d'abord sa campagne. Qui andak nit, jusqu'au 23 ku si nekk sangu ba set civilisé bu la neexee sax xeeñ loj ko lañ bu nga dem si urne yi Aziz Sall au soir du 23 juin ñàkk réew bi yëpp ndax Aziz Sall et le surlendemain collectivité de yëpp ñëw fi et là je le parle au nom du jarab, du grand jarab yu sundoy le président du haut conseil des collectivités de Inch'Allah, au rabbi cette fête là ñu ñoo la bokk ñëw fi fête ko Hmm. wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. chers amis bu Lune TV ñoo leen nii bu baax a baax di leen ziare euh, ba tey léegi ñu dellusiwaat ci diwaanu ñàgg ñàkkorob diwaan pël euh, fii nag defe naa miin ngeen ko ci euh, képp kuy seetaan site bi tey nag ñëw fii ci benn meeting monsieur Abdou Aziz Sall woote ko di def grand meeting am moom lañ fi tey ñëw seet si nag boo ko defee rek tey dañuy am moom inscription balaa ñuy dem ci meeting ba. laaj ko ay quelques questions mu ci ay leral bu ko dañ TV ñu dugg ci waxtaan bi Je mère nuyu bu baax euh, TV di leen bu baax di déplacement bi ngeen si sama ouverture meeting euh, communal bi nga xamné mom lañuy campagne bi nañ sax mais ay caravane mais campagne bi dëgg daal ñu ngi siy doog a door ñuy def ñuy def ñuy def def meeting fii nga xamante ne mooy Niakoulrab di sama village natal lii daal euh, vraiment maa ngi leen si gërëm daal maa leen si gërëm bu baax. monsieur ci politique bu ñu doon laajte Aziz Sall daal benn. jeune la que ne ngi fille de nga ma fek muy yaro cycle primaire suma papa fille la Judo, suma yaay fii la juddoo kon Con. la na la ma sama village natal Je village bu ñuy wax di ay lébu fille. si si goxu Ndakaaru bon voilà man je ma mère mon mère euh, laaj ma aussi lan mo la ci politique damay faral di wax ne mouvement bi man toujours ma wax ko ci samay discours euh, APEX daru salam ñom ñoo ñoo former mouvement bi na dañ ma bëgg jital bu ça fait plus presque dix mois wala 11 mois lu manki un an parce que dañu bëgg préparer élection locale yi di ndax vraiment yi mu nek te am nañ yaakaar ne buñ ma jàppalee bu ma ko jëlee dinaa dinaa leen liggéeyal lii daal moo waral ma jiitu ci mouvement bi mais nekkul lu ma créé. kon daal bu ñu waaw dina yomb dina yomb xam nga mbooloo mooy doole te li ma la wax léegi Euh, commune Tivaouane Peulh ñàgg ñoom euh, ñoo ñoo ñoo ñooy doole ji parce que mbooloo bi mooy mooy doole ji wax naa la ne mbooloo moo ñëw ci man jóge partout fu nekk si gox bi si commune bi ñëw ne dañu ma bëgg dooleel dañ ma bëgg jiite ndax daal euh, wóolu nañ ma wóolu nañ ma nag tënk na lépp wóolu nañ ma ba yaakaar nañ ne incha allah rabbi commune bi dinañ ko jël tekk sama loxo ndax fañ ko doon séente séentu ma yóbbu ko fa.

benn do commission domaniale moo fi dox te suuf si ñoom dañ koy jaay di ko paj paajo ñu ñi di yuux di mer mais bu fekkoon mu ngi dox kon kon jeunes yi duñ ñëw ci man di ma wax ne kaay ñu jiital la pour nga jëm kon yaakaar naa ne lu leen jële yomb na ndax population bi ñoo am baat bi te ñoom ñoo ma ko jox. Euh, bu bu baax a baax baax gis nga xam nga politique dafa metti te wax naa la la bu ñu la jiitalee un mouvement wax ma parti de mouvement bu la jiitalee ñuy dem élection ku ne xam ne ne élection dafa metti lool et puis ça demande beaucoup de moyens kon bu ma xoolee ba xam ne man war naa ko mën a jiite ak quels que soient les moyens d'abord ma ma accepter ànd ak ñoom parce que mënoon nañoo bootu parce que mouvement aussi <laughs> ku ne xam na ne dem ci metti na mais gëm suñu bopp jàpp ne incha allah mairie bi bés bu tegee suñu loxo. waxuma la ndax di am ay partenaires dama ay partenaires yu bari laa la wax ñu ngi ñu ngi may xaar pour mairie Tivaouane Peulh ñàgg bi incha allah bu tegoo sama loxo ñu liggéey ko ñu yëkkati ko parce que dafa daanu ñu yëkkati ko ba àddina bi yëpp dégg ko loolu moo tax parce que man bu ma si amul yaakaar du ma si sonn yow it di si yàq sama alal alal dafa dafa sax si xol lool lii may wax naa la ça fait onze mois ñu ngi ñun presque onze mois ñu ngi campagne xaaruñu ba campagne bi ñëw ñu doog a dugg onze mois ku koy nga ne la ñàkk si xaalis bari na kon suñu suñu suñu yaakaarul woon ne euh, comment dirais-je suñu commune bi mën nañoo relever défi bi kon duñ ci dugg te incha allah dinañ relever défi bi bu soobee yàlla incha allah élection yi di ñëw. incha allah dinañ ko gagné te dinañ defar dëkk bi ba président de la république sax Macky Sall xam ne Tivaouane Peulh am na maire bi see askanam doon xaar. maanaam école de jàngukaay yooyu yëpp est tey jii boo ko euh, mu nekk sa premier kuréel bu baax a baax xam nga wax na la y a neuf domaines de compétences transférés yo xam maire mo ci maire mo ci am droit comme li nga wax santé xam nga gis nga santé dafa nek domaine bu doy war bu sensible gis nga nit bu bu wérul du tal dara nit bu wérul du tal dara man dal bëgg na inshallah allah buma askan yu wolo ba teg ma ci kanam lépp luy wàllu sante dinaa si bay sama waar lu ma ci man ak woote woote ñu may jàppale woote ñu may dimbali si wàllu sante ba vraiment sante bi nekk à la hauteur ba ku feebar mën a faju ku feebar sa xel dootul do sa fit dootul dem mais jamono bi euh, fi mu toll nii daal euh, santé bi daal doy na waar parce que boo amul boo amul doo faju te xam nga ne ñàkk gi bari na kon santé bi war nañ si investir bu baax a baax incha allah moom samay priorité la moom. sécurité bi nee nañ euh, manqué na loolu ndax euh, éclairage public bi nee na ko tali bi fii yëpp guddi boobu jaaree fii ñun fii day dundam ndax yaa koy prévoir nii. waaw sécurité bi aussi maa ngi prévoir ndax dëkk ni muy màggee rek noonu nga koy noonu nga koy prévoiré dëkk ni muy màggee te xam nga suñu gox yi nag dafa nekk benn gox si Dakar foo xam ne ni muy màggee presque fenn màggeewul noonu kon il faut que ñu prévoir sécurité d'abord. wax nga léegi éclairage public nga xam ne courant bi aussi extension yeeg yooyu war nañ ko yokk bu baax ba lépp leer ndax aussi yenn agression yu bari lëndëm rek moo koy waral ndax raar na lu ñuy fekk nit fu leer fu am courant léppay takk ñu koy agressé raar na kon incha allah loolu daal ñu ngi si bàyyi xel bu baax. bu ko defee yow bu doon am nga tey jii looy conseil bu jeunesse bi ñàkk ñàkk du Tivaouane pour attiser comme ni nga ko waxee ak suñu yaay yeeg suñu papa yëpp nga conscientiser leen pour ndax gis nañ ne réew mi tey jii mel ni tey jii ñi waaw man li may wax mooy mm, gis nga nit euh, sa gox da koy bëgg te comme commune Tivaouane Peulh ñàgg man jàpp naa ne bëgg nañ seen gox ndax yéen ñii du ngeen ay gan ci reportage jëm ci man samay kii vidéo yu bari samay euh, événement yu bari yéen ñi ne ko doon jël gis ngeen askan wi ni ñu ma toppee dama ne gis nga achat de conscience yooyu bu jëkk amoon na de waaye léegi. képp koo xam ne da ngaa yor sa xaalis nga war a liggéey liggéeyoo nga nga denc sa xaalis ba di si faj say soxla di si may ku la neex ba élection ñëw nga génn la sa des nga ne da nga ciy jënd euh, population bi yaa ngi nax sa bopp ndax léegi ñi ñu nañ de ñu yeewu nañ koo si jox nag dina lekk waaye dama ne ba balaa balaa muy leer le 23 janvier incha allah bu 20 heures di jot dama ne lépp dina leer koo yaakaar ne da ngaa gën a muus askan wi wala da ngay jënd askan wi nax sa bopp parce que xaalis moo say jeex. te kenn du la voté loolu moom maa ko wax. la may woote rek mooy jàmm toujours la may wax jàmm ndax politique du rayante politique du fen politique du wor xam nga man dama ñëw suñu mouvement bi dafa ñëw pour def politique bu bees toujours dama koy wax politique bu bees mooy sagesse d'abord nañu yaru parce que il euh, si le lo am mu mën Barkel, si le lo amou nit man campagne bii ñuy goudal du goudal nañ si bisimilahi rahmaani rahim te maa ngi ñaan yalla yàlla am ben violence Nima ma toujours mangi ni conscientisé conscientiser di leen wax man violence parce que violence de yachre, violence baaxul ndax inshallah allah nit su dara da koy dem ci yar da koy wuti si si ak dal da koy wuti si ñi ñi sopp ko wóolu ko jox ko li nga xamante ne nii euh, mooy commune Hann Peul ñàgg te li may faral di wax dama koy wax sama yenn partisans yi naan waaye bu wax loolu dañoo bëgg a gañe may leen man daal li ma bëgg mooy commune bii ki nga xam ne moo gën si askan wi mu gën ci moom gën si askan wi yàlla na ko yàlla jox te mu nekk man nag loolu daal fu ma toll maa ngi koy wax commune bii dama ko fonk fonk goo xam ne dama ko bëgg-bëgg goo xam ne bu ma sañoon dina am dina am émergence boo xam ne àddina bi yëpp koy dégg dina am émergence boo xam ne ki jiite réew mi dina ci kontaan lool ci ki ko jiite bon te te mu nekk lu gën ci moom aussi ki ko jiite te yàlla na nekk man. di masawu coon waa mouvement bi yëpp ndax vraiment sonn nañ sonn nañ lool amatuñu guddi amatuñu bëccëg gis nga ñu bu def ay caravane dinañ dem ba deux heures du matin. te xam nga loolu coono la te suba teel aussi dina fekk nga jógaat mbooloo nag bu ñu la jiitalee te xaaruñu si yow dara parce que man mbooloo mi ma mi ma jiital yëpp xam nga bu doon damay leen di jox xaalis kon ba tey jaay naa sama kër gi ma dëkk génn sama waa kër mais dama ne sono luñ ma ci dara laaju ñu ma dërëm bon xanaa lu mënta ñàkk waaye daal vraiment maa ngi leen di sant mouvement bi daal maa ngi sant bu baax baax waa mouvement bi di sante aussi wa communauté Tivaouane Peulh ñag ndax bari na ñoo xamne ne bokkuñu ci mouvement bi té té te ñun lañu andal parce que xam nga am na ñoo xam ne dem ay meeting nak ay ay déplacement ay caravane duñu mëna ñëw mais ci seen xol yow ya ci nek kon maa ngi sant ñëpp di sante wa ñàkkorop di sante wa ñag di sante wa communauté Tivaouane Peulh ñag ñepp vraiment gis nañ dal cofeel gi ñu am ci si ñun gis nañ aussi bëgg-bëgg bi ñu am ci ñun di ñaan yalla aussi le 23 janvier li nga xamanteni moy élection yi ñu def ko ci jamm mu jeex ci jamm te yalla may ñu ndam jërëjëf mbokk internet bu Lune TV fi la ñu ci meeting bi ba léegi xam naa da ngeen ñu wéy di topp ndax bu ñu fi jógee dinañ dem ci meeting bi euh, fas yéene koo couvrir ba mu ba mu ba mu jeex incha allah fi dooleel monsieur le ñoo koy jaajëfal bu baax a baax di ko euh, bëggee di jaajëfal bu baax a baax mbokk internet bu Lune TV xam naa da ngeen ñu wéy di topp rek boo defee incha allah ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen jërë ngeen jëf